beneen jigéen bi yoroon cam euh, caméra bi portable bi ndoket bu marron am genre genre Lagos am ay design yu noir kon kaat yaa ngi noonu mat na wala mat kaat yaa ngi noonu moom it mu sol bracelet Ousmane Sonko di ñii la kaat yi ku ci nekk wax naa la dëkk naa lu mu sol léegi ba ñu ñëwee ñoom ñi ngi fa fa lañ nekk nekk nañ fa ay fan mais du ñooñu kese parce que dañ leen relais nee naa leen day relais ñooñu ñoo ñëw vendredi vendredi à midi remarqué nañ déjà euh, oto bi foofu tamit ba léegi waaye yeneen nit ñoo fa ñëw ñaari jigéen ñaari góor bu Ousmane Sonko di génn nuyeeti na leen mais Ousmane Sonko bu mu génnee auto Khoureychi cham la jël basketteur parce que auto nekou fa auto Khoureychi cham la jël wo chauffeur amul garde corps mu ànd ak chauffeur ñom ñoom def gang dem julli ci mom amna ak ñeneen ñaar ñet ak gardien bege ñu dem julli ci ñoo ñu dox juma ci sorewul Ousmane Sonko jël ak chauffeur jël auto Khoureychi dem ci ba ci juma ja xuree si jàmm ba imam bi kàbbaree ci la doog a génn ci oto bi lal julli moom Ousmane Sonko ànd ak woor ak set ak sellal lal julli ba ñu jullee ba pare nit dee jóg moom bokk na ci njëkk a jóg mu jóg jëlaat si jaadaam dugg ci oto bi di dem léegi ñoom Macky sàll comme dañ koy topp koñ bu oto bi doon jaar dañ fa fatte ay oto dañ fa fatt ay oto pour wan leen du benn sax benn oto koñ bu auto parce que Ousmane Sonko bu mu ñëwee foofu dafa wacc bokku nak auto bële diko xaar de fofu mu jaaroon bu muy ñëw Macky Sall dafa yabal ay auto gaay yi koñ bobu non ak ay auto ay auto yu taxaw ay taxaway bo xamni yo benen auto mënu fa jaar auto bi taxawé ni auto bi taxawé ni benn auto mënu fa jaar Ousmane Sonko wacc ci auto ci auto bu auto xurees ne chauffeur bi comme fi dafa xat mënoo fee jaar. da ngay jéem a wiir man maa ngi dox mën naa dox ni dem gàlle ci bopp koñam ca kaw boo jógee ci jumaa ja donc noonu la Ousmane Sonko di dox di dox comme tout le monde ak ñenn ñu jógee ci jumaa ja di dox mi ngi wax ak waa koñ ba sax ñenn ñi tooñante ñoom dox reetaan ñëw fekk gel bu ma leen di wax ñu leen ko ñee tuddee ko kaa KH di leen jéem a nax def ci dee tudd loolu de jàpp leen tur bi xujja si la tudd xujja si gendarme mi ngi tudd si xujja si ñii la di leen nax Sénégal di leen jéem a réeral bindal leen KH bu dee xujja si la tudd si SY dafa xeereer moom tamit mi ngi mètre boo xoolee un mètre soixante dix un mètre quatre soixante quinze sama genre gi un mètre soixante dix un mètre soixante quinze lay pesé xeereer moom xujja si la tudd ñu naan KHD <laughs> ne dañ ñuy nax fii moo laa du toog ci Sénégal gi di dund ngeen leen di duulal ci jeex na Sénégal amatul fenn lu fi dëmm dëmm lu ma loqati ko ñëw jox ko Sénégalais fii amatul luy nëbbatu jeex na tàkk ak moo laa rek bu leen jomm bu leen jaxle lu leen jommal ma loqati ndayam même bu ñu laalee seen jabar yi mun naa leen ko indi noté leen xujja si la gendarme bi kii danañ jox ay numéro téléphone am ak lépp xujja si la tudd ñu leen di jéem a naxee ay KHD xujja si gel bi xeereer di def entre un mètre soixante dix un mètre soixante quinze oto bi mi ngi gaare teg bi nga xam ni Macky euh, Ousmane Sonko mi ngi dox di ñëw parce que dañoo fatt fële ñoom Macky Sall dañoo fatt fële dañoo provoqué Ousmane Sonko dañ ko doon provoqué sëriñ laa bëgg ñu xam ni dëkk bu ñu nekk tooñeel gi fa am ñu jóg wax nañu ragal yàlla tuuti yàlla rek a ragal Ousmane Ousmane Macky jaru ragal ndax du yàlla du yenentu xujja si bu Macky Sall Ousmane di ñëw xaaral ma génne leen portable bi déglu la jàmm la portable baa ngi nii portable baa ngi nii portable baa ngi nii photo portable baa ngi nii portable baa ngi nii gis ngeen fu neen portable portable baa ngi nii lépp dinaa leen ko indil portable baa ngi nii kii mooy kanam nga gis nga fu ne nii xam nga dafa daanu ci suuf seeg yooyu xaw a xoosu nii gis ngeen portable bi portable baa ngi nii ginnaaw gaa ngi nii Tecno Spark ginnaaw gaa ngi nii Tecno Spark portable bii ñuy wër di rey seen bopp te mu am ay bomb ginnaaw gaa ngi nii waxoon naa leen techno spark lii moo nekk ci ginnaaw portable bi portable bii moo doon enregistré Ousmane Sonko tey gendarmerie toj tey tey rek <laughs> ministère ya toj tey rek Antoine ñàkk jom jom bi tey rek ngeen di xoolal portable bi ngeen di wër ma ngi ne yóbbu nañ ko ma nga Corée du Sud données yeeg lëpp lépp laay génn ci portable bi lépp kon donc lii mooy phase B bi ginnaaw portable bi mi ngi ni bii moo doon enregistré Ousmane ko bi mo don enregistré Ousmane Sonko ni ni yéena ko gissando mun na ko génnee fi mi eh, fi lo gëna ki bu lañ nexé parce que ñun mom ñi portable ak juróom-ñaar wala ñi dem fi ay jëf fi la gëna léré portable baa portable bi mo indi ciowli ngeen face baby ngi ni

kii mi ngi ci biir portable bi ab gendarme la gis ngeen mi ci biir portable bi kii dana jox ay tur ci biir portable buñ ko loxatee am na ay appel yu mu def ak Ridwan Ridwan appelé gardien du paradis kii mooy Ridwan appelé gardien du paradis ay appel def lañ seen appel ay appel yu moo ne ay appel mooy appel yu doy ay pexe Ritwan gardien du paradis le ko fa gardien du paradis ci biir portable ba bon mu def ci tamit ay dina jox numéro bi liste contact yi jël n'a ci CDT CDT ci CDT Korea numéro noté len 77 mu ci CDT Korea numéro bi 77 333 0043 43 CDT Korea ay contact yi bok ci sur la liste de certains contacts la leen jox y a CDT Korea xamna CDT colonel ou je sais pas parce que CDT Korea 77 333 0043 43 am ku Jantal Mara mi ngi ci euh, contact yi Jantal Mara jël leen 76 424 95 94 gis ngeen ñoom ñëpp ay numéro commercial lañu yor Jantal Mara 76 424 95 94 da doon contacté ak moom ah commandant kon ko commandant la commandant Korea kon commandant mi ngi ci biir Jantal Mara jox naa leen ko numéro jël leen Jantal Mara tamit balaa maa avancé tamit yéen a ngi ci commandant ko commandant Korea jël Jantal Mara commandant Coréa. Amna na Mara 76 424 95 94 Koko mooy gendarme jantal Mara tumbi ci biir téléphone bi tumbi tumbi 77 715 85 27 Amna Salia di Fatou Bintou finance loolu la ci bind Fatou. Bintu Mbay CALIA Salia di Faatu Bintu Mbay finance donc pour ñuy doog a ñëw téléphone baa ngi nii téléphone bi moom ma nga Corée du Sud ay données yu doy waar yooyu yëpp dinañ ci ñëw parce que dafa yéeme lu nekk ci biir téléphone bi lu doy waar ay conversation ak Marème Faye Sall Marème Faye Sall nag ma nga ci biir téléphone bi Marème Faye Sall ak kii lan moo tax kii ab renseignement général la bu ñu auprès de Marem Faisal, Sall muy garde Marem Faye renseignement général bu gayno ak Marème Faye Sall bu yàgg ak Marème Faye donc ki ci renseignement bu ko ñu détaché ko parce que dañ ko yobbu ci Ousmane Sonko pour muy espionner Ousmane Sonko pour dire jox ki nga xam mom moom téléphone bi tamit fekk nañ fa numéro ki nga xam mom moy le commandant Abdou Meng ma jox leen montal yaa commandant Abdou Meng lépp lañ leen di jox mi ngi ci biir ay conversation moom ak commandant Abdou Meng numéro yi des na de waaw ren rek bu leen yàkkamti dara parce que dafa euh, dafa am lu ma ciy jël am loo xam ni waxaguma ko ok le commandant Abdou Meng anamu telepon bi telepon bi bomb la la ilaha illallah pa pa pa mu ñun bandi ñi amel affaire telepon bi bomb la de billahi téléphone bi bomb la téléphone bi donc commandant Abdou Meng après dina len ko indil ma nga ci bir contact yi mom tamit mi ci bir contact yi Moussa Fall voilà mi ni commandant Abdou Meng bama gis Euh, de tey waa waa waa kii nii nu moo tax man maa ngi dund lu metti waay billaahi facebook ni ñu ma bloqué nii ma ñëw instagram nii am naa lu ma naqari lii lii facebook bu doon loolu la toj na bu yàgg instagram du du du mbalit instagram du kaña soof quoi doon Facebook heure bi bi toj na yi ñu ngi partager dëkk baa Instagram Instagram day yàq valeur da ngay saboté di def ay affaire loolu ma dama am lu ma naqari fii sax dama waroon muñ ba vendredi rek ma jox ko waa Facebook booy maa ngi ko yemale fii maa ngi ko yemale fii sax